yàlla jaar na yoon sécurité bi doy na nit ñi it am nañ akuk dal ñi ngi wate ci jàmm bu wala 18 heures incha allahu rabbi comme ni ma koy faral di waxee rek euh, ñun danañ dégg vive parce que ni ma gisee euh, situation mooy ñun ñoo favorable. Mhm. Ah, ñu gis la ah, nga jiite euh, organisation citoyenneté. Mhm. boo xam ne day jàppale askan bi ban message nga jox la population de Touba ci jour des votes. waaw jour vote bi parce que ñi ngi ci mën naa ne ñi nekk ci seen kër di togg añ. wala yu demee noonu nañu génn dem wate ji massivement parce que euh, wat bi du question que euh, wat rek la dafay euh, dafay kiiw citoyen maanaam citoyen bu ci nekk da nga am droit vote tànn ki nga xamante ne mooy yor réew ëllëg kon dama leen di ñaax ñoom ñëpp rek ñu génn dem wate ji massivement. tey am. non sécurité bi moom wax dëgg yàlla comprendre nañ surtout nit yi parce que ñi ngi dialogué ak ñoom di leen teg ci aw yoon di xool carte d'identité yi kenn ku ci nekk fa nga war a watee ñu yebal la fa ngay dem wate ji même ku ci juum sa bureau de vote ñoo lay accompagner te loolu du seen métier sécurisé lañ leen wax mais dañ ci plus loolu kon dañ leen di sant di leen gërëm. Mouride Info maa ngi leen di jaajëfal jërëjëf. yëg-yëg bi xanaa jëlee fi nekk rek indiwaat keneen. ci organisation bi ndax xel dal na moom sama xel dal na si baax moom. ana ban message ah, ñëw rek wate si jàmm ñibbi si jàmm rek waaw jërëjëf. Euh, na nit ñëpp jàppale te ñu woote ci jàmm lépp am ci jàmm bu ngoonee mu félicité ñu te incha allah loolu dina am. Ah. waaw. jaral nañu ko ñu ngi ñu ñu ngi jógee barki dem ci guddi mais jaral nañu ko. Fi plan de Serigne Touba lo so jor ko woon woote ci jam ñibi ci jam resultat yi genn ngon inshallah rabbi. responsable famille ana ñi nga dem ji ci jam dem ñibi ñaanal resultat yi leer nañ te inshallah rabbi lol dina am. ñëwoon fi ni pour wota si mo wota nañ ci jam asram mais tay nag wota ji wota élection yi ñu gis ni ren dal na sun xel bu baax baax parce que secret secret bi na nit ñi ñëw nañ woote nan woote si jàmm ak salaam ñu ñu naan kalameer gañ mu jeex tàkk maanaam waaw dund woote ci jàmm ak salaam bi ci jàmm ak salaam. Ah, ba tey ana ban message bo boo jox say doom say càmmiñ ñi nga xam dañu dañoo war a génn seen i kër génn seen i place war a ñëw def comme yow ban message nga leen di dégg tey. xanaa woote rek ndax maa ak muudu mee ñoo bokk benn baay may magam woote rek nit bi ci jàmm ak salaam. da la ñuy digle seet ka la neex nga fatal ko. jërëjëf waaw. rahmatulahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ablaye Mboup dëkk Darou Khoudoss. waaw euh, ren moom wax dëgg yàlla affaire bi jaar na yoon macha allah fële daal laa dégg benn bureau bu ñu dénoncé boo xam ne bureau neuf nee président bi moom ñëwagul ba léegi waaw il est une heure nee mais bu dee ci biir moom wax dëgg yàlla moom affaire bi jaar na yoon moom macha allah. tey waaw am na yokkute. parce que nit ñi ren moom ñu bëri dañoo volonté wu moom dañ ciy boolewul sax caaxaan yoo xoloo yooyu yëpp ñu doon def dañ koo bàyyi léegi nit ñi leen lañ def seen carte vote lañ yor bu dimanche jotee ñu ñëw votel ki nga xam ne moom lañ sentir en tant que doomu Touba tey borom joxe xanaa ñu teg ko ci jàmm ak salaam lépp ñu def ko ci kaw yaru yiw silbissé ku nekk votel kala neex si bu 6 heures ci ngoon ñu daal di ñëw déglu résultat yi ku gagné ñoo xam ne yow la yàlla teg ci kaw.

Euh, vote bi commencé na heure malgré euh, am na retard tuuti mais bariwul euh, ñu ngi sant yàlla daal pour le moment ci luñ gisagum. ñu gis bu am solo ci force ñu nekk ci zone bi que li xamante élection yi la dafa war ah, bon ñu ngi koy saluer parce que xam nga tamit lu mel ni def ci baax parce que xam nga boo fa bàyyee xel ci législatif li fi amoon noonu xam nga lu ñu lu ñu lu ñuy regretter la. parce que warul amaat ci lu mel ni élection présidentielle parce que élection présidentielle dafa xaw a sensible moo tax euh, disposition sécuritaire bi moom macha allah wax dëgg yàlla ñu ngi kaaraange gi mat na ñu ngi jàppale nit ñi daal. yéeg-yéeg bi xanaa jëlee fi ki fi nekk rek indiwaat keneen. ci organisation bi ndax xel dal organisation moom sama xel dal na si baax moom. xanaa ñëw rek wate si mu ñibbi si jàmm rek. Ah, di wax ne ñu ñaanal suñu khalifa general di Serigne muntaha basir mu yag fi lol ci ande wér di wax ne senegal ñun ñoko bok ndax kenn mënu ko xar ñaar ndax bo xolé ne euh, li fi jaar yëpp ci ay metit ay ciona dañuy sant sunu borom ci xamne ne élection yi jàmm rek mo ci wara am. ndax depuis bi sëñ Mountakha waxee démb ñëpp ñi ngi ci am yaakaar ca xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, ñëpp am nañ Pastef am nañ Pastef am nañ pas am nañ loo xam ne nii daal wax dëgg yàlla dañ ci sant sunu boroom ndax lii rek mooy àdduna ndax lii rek mooy société ndax ku ne rek sa réew moo la war a jaral lu ne te lii mooy suqalim réew mooy suqali réew. di wax na nag di ñaanal ñëpp nag waa sécurité bi ñëpp macha allah def nañ seen wareef ba mu mat jeunes yi mag ñi ndaw ñi ñëpp di ñaanal sunu papa yi di ñaanal sunu yaay yi ca xam ne lii rek moo am solo di leen ñaanal yéen ñii nag ndax wax dëgg yàlla macha allah yéen a ngi def liggéey bu am solo liggéey boo xam ne ni macha allah dañ leen di ñaanal yàlla may leen fan nu gudd ak wér may leen ndam. di ñaan nag yàlla mi nga xam ne mooy boroom sutura di borom xéewal ñu ñaan képp ku gën ci réew mi rek yàlla na ko fi yàlla teg ca xam ne ku gën rek la fi yàlla teg nañ ñëpp sant sunu boroom te delloo yéenante lu baax yéenante jàmm ca xam ne ñun ñoo bokk Sénégal ñoo bokk sunu sunu bopp ñoo bokk sunu lépp daal xam ne dara wuru fee am lu dul jàmm. di ñaanal na kilifa diine kilifa aada képp ku fi yàlla teg ñu xam ne kooku kooku la fi yàlla teg di leen sant bu baax di leen gërëm. waaw waaw ba ah, xanaa kay kii na jaar na yoon di wax dëgg yàlla. bulletin yëpp nga fa. waaw